alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu euh, ñu ngi fii ci kër Cheikh Omar Diop di muqaddamu Maulana Cheikh al bu mag bi nga xam ne àddina léegi kenn laajteetul ko ci rawatina ci liggéeyam bu rëy bi nga xam ne ci la nekk di liggéeyal Baye ak ci njabootam ngir taalibe Baye yi delluwaat ci Baye delluwaat ci njabootu Baye gi liggéeyal Baye Niass ci foofu ñu ñëw ziyaare si ko ndokkeel si ko am nag laaj yoo xam ne ñëw nañ pour laaj si ko ko muy laaj yu am solo yi nga xam ne nii xew na ci jamaano jii nga xam ne xewutoon muy mbokki taalibe yi nga xam ne seen àddina lépp dañ ko jël rekk yeme yemele ko léegi ci mbind yi nga xam ne bu njëkk gars yi dañu daan wax ne loolu dafa dee retourné waat na jëmale waat si nit ñi ñu bëgg nag tey ñi laaj ci sëriñ bi ci loolu nga xam ne moom mooy téere yi yi nga xam ne moom la Baye Niass bind ak mag ñi nga xam ne ñoom la Baye Niass yar def si ñoom xam-xam léegi nag ñu bëgg waxtaan ak sëriñ bi ah, ci ay question yu am solo ci diggante ñaari yooyu nga xam ne moom la Baye Niass tëral lim bind ak mag ñim yar ñi di laaj sëriñ bi ngir mu différencier ñu diggante ñaari yooyu naka lañ leen di xàmmee ba kenn ku si ne jox la sa wàccuwaay bisimilah sëriñ bi. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka ihdina siraat almustaqima siraat allazina anamta alayhim gayri almaxdubi alayhim wa addaalin allahuma salli ala seydina muhammadin ilfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari asim yaa himata sayqi udrina bihada almahdari waltaxti fi nasrat lana bisam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yeneen leen nuyu di kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu mboolem njabootu baay bi ak muqaddam yi ak taalibe yi bàyyiwuñu kenn di sant yàlla ci jotaay bi nga xam ne mooy jotaay tey bi ak li nga xam ne moom nga laaj muy laaj bu am solo boo xam ne dana dimbale taalibe yu bari euh, baay radiyallahu anhu dundam lépp a leer ci nga xam ne yàlla may na ñuy oote ñu leen di uyu ci dëgg bàyyi rekk moo ci am sens am video ñu koy gis am cassette ñu koy gis ñu koy déglu mu am téere ñu koy jàng ba pare am ay doomam ñu leen di gis am ay taalibeem ak ay muqaddamam ak ay njabootam ñu leen di gis xam seen dund jamono bi fi bàyyi nekkee ak bi mu fi jógee tey dafa yàggu yàgg goo xam ne sos fii dara xaju fi waaye nga seytaane xeebu dara te seytaane dafa yàkkamti waaye bi bàyyi di dund lii ñuy oote ni caaxaan yii kenn mësu koo ñemee oote ci kanam bàyyi xanaa ñi ko doon oote di ko muur muural ci suuf loolu moom suñu gëstu dem nañ ba am ci ay leer-leer ci ñi koy oote nii fañ jëlee oote bi ca ña leen yar la jóge loolu maa ngi fàttaliku jamono yi alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu boobu danañ ci ñëw bés dinañ ci dem suñ prochaine vidéo bi ñuy def vidéo boobu la ci Serigne Mamoun ñas déclaration bi mu defoon ga euh, fële Kosi fële euh, Taïba déclaration boobu mu defe woon ci Taïba ci ootekat yi loolu jamonoy Alaay Abdoulaye la boobaak léegi man na ñaar fukki ak benn te xam nga ne loolu yàgg na kon ñii seen oote yi du oote tey ña leen ña leen yar nag jamono boobu ñoom sëñ Mamoud ñoom la doon waxal waaye tey ñoom màgg nañ tey ba samp seen ay ndënd kon xam nga ne yëf yi caaxaan yi dafa yàgg taalibe yi nag ñu bëri eewawuñ ñu bëri yàgguñ ci faydu bi ñu bëri dañ leen di wan yoon ñu aw ca waaye xamuñu yoon wi léegi nag jamono bi nga xam ne jamono bi nga xam ne euh, euh, Serigne Mahmoud mu ngi wax ci mbiri faydu bi di ci kaas di ci wax di ko naqarlu jamono boobu ak tey dafa yàgg diggante boobu am na ci ñoo xam ne fekkoon nañu am fukki at ak ñaar am na ci ñoo xam ne juróom-ñaari at lañ amoon nekkuñu woon ay mag ay xale lañ woon léegi nag màgg nañ ba dugg ci faydu bi am lu bëri loo xam ne ci taarixu baay ak ci histoire baay euh, échappé na leen waaye li gën a garaaw ci seen ay pexe ak seen ay politique parce que xam nañ ñi bàyyi yaram bi yaa ngi ñu ngi waaye li njëkk a def mooy kar xale yi pour ñu doyee dal ñi bàyyi yar ba dem ci ñoom laaj leen ndax bàyyi ñaari téere bi bind téere bi nga xam ne dafa dee nekk ci kayit gu dee ak téere bi nga xam ne dafa dund nekk ci jëmm ju dund téere bi bàyyi euh, euh, euh, bind muy téere bu dund bi nekk ci këyit gu dund gi kooku ba ilaa yoom yi yëpp xanstoona du fi jóge mooy ki bi nga xam ne dafa bëgg yàlla su bëggee xam yàlla nu muy def lu dem ci muqaddam bi hmm. mu sóob ko jox ko aska lan la koy wax hmm. day wéet moom ci ne hmm. wax ak moom direct face à jox ko ay leer mu leer yi ci ci dëndam dem ci dëndam bu bu demee ba xàgg ci boromam xam yàlla dox ko téere de mu kal la téere de xam na téere de waaye fa la ko teg jox ko askar jox ko ay baat na ko demal ci jàkk ja wala demal ci jumaa ja wala nga demal ci wéet nga sikkar ko mu dem sikkar ko mu ñëw waxaat ak moom jàkkaar léegi moom wax moom jas bu ko ci yàlla leeralal ko wax ak moom ba mu àgg ci borom buy seydu ci yàlla tamit day del siwaat toog jàkkaar moom mu waxtaan ak moom ba mu egg ci yàlla ba mu xam xam borom léegi nag suy waxtaan ak moom su amee ci loo xam ne leeru ko ci li lim koy wax ci la koy soog a lee dalil ci waxi bàyyi ci lu mu bind ci téere mhm. pour mu mën koo déggee li liñ koy wax ci yàlla mu mën mu mën a am dégg-dégg bi wala mu mën a am fatu ci li liñ koy wax ndax des fois ñu wax la dara loo xam ne soo déggee na bàyyi wax na ko rek yaqin gi daal di ñëw mhm. te liñ lay wax yëpp yaqin lañ ci soxla si yaa dégg mhm. léegi nag pexe yi nga xam ne moom lañ lal mooy ñoom seen ñàkk jàng bi ñàkk jàng gi nga xam ne moom lañ ñàkk jàng moom lañ bëgg a naxee taalibe yi léegi dañ ne ñoom jàngale la indi te ñoom ñuy woote yëpp kenn jàngu ci kenn na jàngu ci bu pare ne jàng la indi lañuy ñuy samp léegi loo wax ñu ne la indil dalil léegi bayti indi bayti kii la bàyyi wax na ci bayti sàngam bàyyi wax na ci bayti sàngam bàyyi wax na ci bayti sàngam bàyyi bi muy wax ci bayti sàngam bayti sàngam bayti sàngam loolu pour arabe yi la ñi nga xam ne dégguñu olof xamuñu waxi bàyyi loolu ñoom bàyyi daf ko pour ñoom am na ci wolof yoo xam ne dinañ jàng téere bàyyi pour euh, euh, euh, pour seen bopp loolu kenn bañu ko waaye li nga xam ne moom moo moo ëpp solo yi bàyyi bind te ñuy leen koy dawloo xam nga ne moos jamono jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah mhm. Seydina Ababacar amul benn téere bu Seydina Ababacar bind yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu indi diine ji amul benn téere bu mu bind Seydina Ousmane amul benn téere bu mbind Seydina Ali amul benn téere bu mbind Seydina kii Omar amul benn téere bu mbind waaye tey fi mu ne nii tey bu fekkoon tey ñii ñoo nekk fekkee jamono jamono yonent Yàlla sallallahu boo leen laajee tey jukkee Seydina Omar ñu ne la di rek bàyyi ma xool li imaam Malik bind xaaral ma xool li imaam Saafiye bind xaaral ma xool li li yi bind ci euh, euh, euh, ci téere hadis nangam loolu moo leen gënal parce que téere yi lañ bëgg a xale yi téere yi jànguñu ko pour nga mën nekk mu fasir pour nga nekk mu fasir il faut nga jàng nga jàng téeméeri junni hadis mokkal ko hadis bu nekk nga xam silsilaam nga xam ba ci euh, fu mu jaar ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu soog laa wax mu fasir kii mooy borom mooy mooy koo xam ne mën na def euh, euh, tafsir wala mën na nekk muhaddis muhaddisu na muhaddis pour nga nekk muhaddis ah euh, léegi foo ma mokkal ñaata ti euh, téeméeri junni xadis hmm. léegi yow mokkaloo ñeent mokkaloo sax ñeenti xadis wala téeméeri euh, fukki xadis nga bëgg oo nit ñi ci ci jàng wala nga bëgg oo nit ñi ci xam-xam léegi lan mooy seen problème mooy saytaane di leen jàpp mooy bëgguñ taalibe bàyyi di déglu kaseti bàyyi parce que nañ kaseti bàyyi ay wax la yow amoo xam-xam ah kaseti bàyyi ngay déglu ay waay naw kaseti bàyyi ñes yi kaseti bàyyi ñes yi ci dënd bi boppam waxi bàyyi ñes la ci laaj bi ñam hmm. kooku kenn mënu koo xuruj kenn mënu koo tappale kenn mënu koo fiiree num nu mu demeewut parce que wolof la ci bàyyi di wax te wolof boobu bàyyi ñes la jógee comme ni bàyyi ñes jëlee pilimam bind ci këyit ga arab ñaari yépp a yam ci bàyyi te bëri na ci téere bàyyi lu bëri bàyyi wolof wolof la ko wax ñu traduire ko a arabe lu bëri bari bëri bëri ba misri wax na ko li bàyyi wax ci maxrib ko wax ci arab waxu ko ci arab loolu tax moo tax bëggoon naa dégg arab bëgg bëggoon naa dégg wolof aywa léegi nag taalibe bàyyi dañ leen di nax naa leen bu leen déglu waxi bàyyi léegi téere bàyyi ñoom jànguñu lépp de li bàyyi wax wattu wuñu ko de te dundab bàyyi li liñ dugg li li bàyyi bind ci téere yi moo gën a tuuti dundab bàyyi dundab bàyyi li bàyyi def koosi ca la bokk la bàyyi def euh, euh, euh, France ca la bokk la bàyyi def Angleterre ca la bokk la bàyyi def Siin ca la bokk la daa bàyyi def Gàmbi ca la bokk waaye lañ ca bind la ñuy wax la ca des nag mag ña ko fekkee ni koy def loolu bokkul ci xam-xam bi bàyyi loolu du téere bàyyi hmm. waaye dem ci mag mu bàyyi yar dund ak man am naa ci góor goo xam ne ñu koy wax Omar Yacine moom mooy mag maam Ilimane Yacine exemple lay joxe mag yi maam Ilimane Yacine nga xam ne maam Ilimaan Yaasin moom moo doon garde xabru baay magam bi ñuy wax Omar Yaasin nga xam ne baay moo ko jëlee kaw Kawlax mm-hmm. ne ko kaay Ndofaan laa la tàcc mu tàcc Ndofaan mu ne ma man baay juróom benn at la ma magee bi bàyyi di doon tut tànk ci ati zaayir sama xarit la woon su daan ndékki yoor yoor la daan ndékki doxab baay boo gën a gudd dem marché la taxaw xool marché ba ñëkkuwaat ne ko nañ dem te loolu du ko def bët bu set ay jamono la koy def te nee na bu daan dem la gën a bëri da daan ànd ak moom teg ko loxoom ci mbaggam ñuy ànd mu ne ma dunda bàyyi lu ma la ci nettali lu ma fekkee la du ma la wax dégg naa yaa ngi dégg hmm. waaw kooku noonu noonu noonu muy nettali ci bàyyi kooku gën a wër téere buñ jàng léegi bëgguñ xale yi dem ci mag ñi de mag ñi ba yar de duñ doo dégg ci seen waxtaan ñu wax ba tudd la Seydi Aliou Cissé dañ koo xaraa waa imagineel Seydi Aliou Cissé nit daan recevoir gan ñi nga xam ne ñoo daan ñëw ci baay punkal yi daan ñëw ci baay nga xam ne ku gëgg bëgg a gis baay ci kër Seydi Aliou ngay dem mu jàpp sa loxo yóbbu na ci baay baay recevoir la waa taalibe yi buñ soxlaa xam loolu ndax dañuy dem ci téere yi hmm. lu fu fuñ ko war a utee ji duñ demee duñ dem kër Seydi Aliou Cissé hmm. Seydi Aliou Cissé ñoom yaram fa ñi nga xam ne doomi Seydi Aliou Cissé Seydi Aliou Cissé yar na leen nettali na leen loolu wala ñoom fekkee nañ loolu léegi ñu dox seen diggante ak ñoom taalibe yi duñ fa dem duñu dem laaj leen ana ñan ñoo doon duggee ci biti réew ci wala borom xam-xame dëkk bi sëriñ si sëriñ sëriñ réew mi ñan ñoo fi doon jugee di dem Seydi Hadji Cissé pour mu jàpp leen ci loxo yóbbu leen ci Baye nan la Baye Niass daan dëgg jëflanteeg Seydi Hadji Cissé bëgguñ ku ko ku leen ko wax duñ ko wax seen ay xale parce que bu ñu leen ko waxee ñu nettali leen dëgg ñu xam dëgg dem dem ci Baye. ay téere lañ leen di naxee jël bayt yi di ko ëlbati naan bu ne bàyyi na xaala ñu ne xaala mooy wax na wax na làmmeñ la ak son wax bi mooy wilaaya son bi mooy xilaafa dégg gi mooy nangam ay tappale la xel la loolu xel la xel waaw buñ ne xaala ba bu ne waxee xaala xaala mooy wax na wax ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy làmmiñ bi mooy ardu xaaj bu ñaareel bi mooy son bi son boobu mooy euh, euh, euh, mooy jaww ji mooy wila mooy mooy mooy xilaafa jaa ngi dégg léegi yow li nga dégg loolu mooy nubuwa yooyu lañ lay indil tappale rek tappale rek xamuñ bàyyi bàyyi yarul leen nanguwuñoo dem ci ñu bàyyi yar dañoo xaraamal seen bopp njabootu baay gi xaraamal seen bopp jikkoy baay yi xaraamal seen bopp dundab bàyyi bugguñ ko dafa am lu leen tax a jóg taalibe yi eewul leen ñu wax leen maa Ibra Faal mu bàyyi naka la bëggee woon bàyyi gis nga gis nga yoonu yoonu euh, euh, téere xam xam-xam pour nga nekk euh, mu mu mu fasir mu fasir wala nga nekk alim da ngay dem jàngi téere yi hmm. waaye bu fekkee suuf yaa ngi nga bëgg nekk suuf yi ah jeex takk ci nekk suuf yaa ngi jeex takk ci yàlla ñaari téere yee ngay jànge ñaari téere yi xam nga lan la hmm. mbëggeel ak dëggu mooy téere suuf yaa ngi de bu leen ci kenn nax dégg olof ak dégg séeréer rek dégg bambara ci yam hmm, hmm. ñaari téere yooyu mooy téere suuf yaa ngi yi mbëggeel ak dëggu lii la bàyyi wax ne ku ko indi am li nekk ci ñun bàyyi mu ne képp koo xam ne dikkee nga ñu mbëggeel gu wér ak dëggu gu mat nga jot li lekk ci ñun kenn du ko am li nekk ci ñun lu dul ku bëgg ak ku dëggu est-ce que wax na ko jàng est-ce que wax na ko dégg arab donte bàyyi saxal la njàng ak bu kon nit ñi buñ leen wala Ibou Diouf la ma waxoon yàpp wu naar gerte. ku ko ku ko yaakaar ndaw martu doo naan. waaye waa loolu du wax Ibou Diouf. njëriñ déjà nekkul gëm leen. ci di barxam mu ne li ngeen di jàng ci seen téere yi mu ngi janoog yéen. bu leen soxla bu leen xañaan bu leen laaj leen ko laaj leen ko Seydi Barham Seydi Barham aywa léegi lan lañ bëgg léegi li nax xale yi mhm. kaseti bàyyi bàyyi wax ci son lan nañu bàyyi ñes lan nañu bàyyi ñes laa wax bàyyi lan nañu bàyyi yow nga ne laa ba kaset yi du dara fay amul xam-xam newul ci kaset yi li Baye Niass wax lan la kon Baye Niass xam-xam moo ko jaraloon guddi bu jotee mu dëj néegam téye ay bindam mbilimam di wax xam-xam moo ko jaraloon amul benn itte ci àddina lu dul dajaleem jurit ni dalale doomu jurit ni ba dem na ba àgg ci wax ne yàlla daf ñoo gàll bakkan boo xam ne dafa am ay soxla waaye bu dul woon bakkan boobu dañuy toog rek di di dollante di dolli rek muy ñëw ñuy sotti te du am ngay kii dafa xaar ay téere hmm. ki ki ki dem bay gàgganti jalaa lay nii dafa sukkandiku ci téere hmm. ñi sukkandiku ci téere ñamoo ñëw gàgganti jalaa lay nii parce moo leen di xamal seen hmm. buñ nax taalibe yi ñoom dañ koy tiitaroo ah dañuy tiitaroo ne bàyyi ñes ci boppam mooy gàgganti jalaa lay ah mooy moo gàgg waa léegi nag jalaale la du téere aywa borom borom xam-xam yi sukkandiku ci jalaale ni sukkandiku ci téere est-ce que kenn ñoom ñoom naa gàggante jalaale ni kon nañ xam nit ñi leer na xam-xam bi jàng bañuñ ko ci bañuñ ci jàng waaye nañ ko def escalier yu yéegukaay waaye du wut ne jàng yi téere yi lañuy jàmm ñu jàmm ñu jàmmuñ téere yi loolu dafa war a leer nañ fexe taalibi bàyyi ñu tegtal leen muqaddami bàyyi te jàngal leen jikkoy muqaddami bàyyi Seydina Omar buñ ñuy nettali jikkoom te pataka dafa fekkee jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah. Hmm. loolu moo tax ñuy nettali jikkoom waaye ñi fekkee jamono bàyyi du ñu nettali seen jikko yi. Hmm. duñ ñu waxal ñooñu dem leen ngeen seet seen keset yi seen audio yi ci internet bi seen audio yi A ba Z doo ci déglu dégg ñu waxtaanee muqaddami bàyyi. dañ leen a xeeb kay. dañ leen a xeeb doomi bàyyi yaa ngi nii di dund duñ leen mës a tegtal. ñu dem ci doomi baay ñu laaj doomi baay lan moo nekkoon koy baay lan moo nekkoon taxawaayu baay lan moo nekkoon mbëggeelu baay duñ leen ko laaj téere yi lañ leen di te jànguñ ko jànguñ arab xamuñ arab dañuy téere yi ñuy jàng soo demee ci euh, ci ci jawaayu rasaay yi jawaayu rasaay lan la du ay lettre mm-hmm. yi baay lettre la koy baay doon bind du ay nit mm-hmm. da daan ñoom ci relation jëflante bi jamono ñëw na mënut ta wax ak ñoom ah. Mm-hmm. mënut a jot ci ñoom mu bind lettre yónni leen ki bàyyi bind lettre yónnee ko bu ko bàyyi gisoon dana ko bind lettre. déedéet kon du ko ko wax directement. Mm-hmm. waa léegi lettre yooyu bu dee mën nañu koo jàng ñi bàyyi waxal nag. Hmm? waaw ñi bàyyi waxal laa leen di laaj ko nu ñu di def lettre yi li ko waral mooy bàyyi gisut leen jotut ci ñoom mu bëgg leen a mu bëgg leen a euh, euh, euh, wax ak mm. mu bind dangay boo soxlaa nit ki danga koy oo ah, mun xam naa mooy oote ah. waaw xaaral bu ñu paree ñu ñu ko maa ngi ngànt lu tuuti yaa ngi dégg uyu mm-hmm. mm-hmm. ngi dégg mm-hmm. eh, eh, dafa am benn doomi baay bu oote woon te xam nga doomi baay moom bu oote amatuñ kii ngant la mhm. ñu ngi lu ñëpp mhm. yaa ngi dégg mhm. donc téere bàyyi lettre yi bàyyi bind moom laay wax lettre yi bàyyi di bind mu muqaddam yi wala di ko bind ñenn ñi dafa fekk bàyyi jotut ci ñoom mais bu bàyyi jotoon ci ñoom du bind lettre da leen di oolu ñu ñëw mu wax ak ñoom waaye léegi mag ñi bàyyi dundal yëpp wax ak ñoom ci yàlla wax ak ñoom ci yë ci ci maarifa ndax loolu ñoom dañ koo jàng dañoo jàng loolu ba mu jeex ñoom ñoo mën a ñoom ñooy wax nit ñi lan mooy faydu ñoom ñooy wax nit ñi lan la ñuy naan ci bàyyi te bàyyi na fi ñu mu ñu móolu ñu gis ko doom yi bàyyi na fi ñu mu ñu móolu gis leen muqaddam yi bàyyi yar ñi ñu mu ñu móolu gis leen te ñu koy oote ñépp nag doo ci gis kenn kuy dellu ci ci ci muqaddam yi bàyyi doo ci gis kenn kuy delloo nit ñi ci taalibe bàyyi doo ci gis kenn kuy delloo nit ñi ci doom yu bàyyi ci seen bopp rek eewul leen eewul leen taalibe bàyyi eewul leen ngeen dem ci mag ñi nga laaj leen gis nga paam maam Omar Yaasin moom ma doon wax mhm. ajjuma bu jot dafa maa jaraloon dundam alhamdulilah salaamaaleykum beneen yoon euh, ñi ngi déggalu jéggalu nag bu baax dog-dog bi am ni euh, si njabootu baay gi dafa am kenn ku si woote woon moo tax mu dagg ñi ci si jéggalu aywa sëriñ bi yaa ngi nekkoon si lettre baay yi alhamdulilah loolu sant yàlla la parce que bàyyi bind hmm. ci jawaay jawaay rasaay hmm. jawaay rasaay boo xoolee dafa am ziyaadu jawaay hmm. yaa ngi dégg ziyaada boobu mooy yeneen lettre gaa yi wóor ba gis ko waa yaa ngi dem di wëri ay lettres yi bàyyi bind te mu xaddam yi bàyyi yi bàyyi yar na fi doom yi bàyyi yi bàyyi yar na fi hmm. sëti bàyyi yi bàyyi yar na fi tey Medina Baye boo demee dafa fekk ay nit ñoo xam ne bàyyi moo leen yar ni nga amee ittee ci ci doo ko ci ñoom lan mooy sa problème bakkan hmm. seytaane xol bu bon xol bu bañ parce que bugguloo bàyyi boo bëggee bàyyi doo xalaat ay téere téere yi di nga leen dimbali ko bu ñuy jàng ay téere hadis dafa fekk gisuñ njabootu yonent bi sa sallam ah dafa fekk gisuñ njabootu yonent bi bu fekkoon tey bàyyi jamono dafa yàgg-yàgg boo xam ne mën nañu wax ne ay sët sataatam sataatam sataatam mën nañu dem dem a dem ba buñ ne doomi bàyyi kii di ci sët yi la bokk wala ci doomi bàyyi la bokk ñu koy sikki sàkka est-ce que dëgg la am dëgg ñu mën a wax waaye yow diw sàngam nga xam ne boo tikkee yow balaa nga ñu laay wax diw ki diw mi doomi bàyyi la sax macha allah soo xoolee jàkk rek xam ne kii doomi baay bu la koy jàkk macha allah xam ne kii sëti baay la aywa yow nga bëgg fee nekk léegi bëgg a loo xam ne daara wéru ci dañuy oote nag amu ci ñoom kenn kenn kenn kenn kenn ku ñemee taxaw bu dëggal sax bopp wax ne man maay xalifa baay mhm. kenn du ko wax de te boo waxee ñu ne am na xalifa saayir am na xalifa baatin yaa ngi dégg mhm. boo nekk baay ñu ne baay am na xalifa saayir ak xalifa baatin te xilaafa boobu ñuy oote ah mhm. xilaafa boobu bàyyi bi nga xam ne mooy mooy mooy jëmmi xilaafa ah moom bi muy dem dénkaane na mhm. bi xilaaf xilaafatum bi bind ko mu wér te gisuñ ci gaa yi ñuy oote kenn kuñ ci bind koo xam ne bàyyi wax na ne yaay sama kuutal sama ginnaaw gisuñ ko beneen bi ci topp mooy ñoom bu fekkee bàyyi bind ko tamit ñoom nañ ko wax ñu xam ne ñoom ah waaye waxuñu ko après ñeneen ñëw di leen otel ñeneen ñëw di leen otel am na ci ñenn ñoo xam ne ñoom moom ñoo ma ñooyu moom man dama dëkk daa ima di leen ñaanal yàlla mooy ñu gën a bëri wax rek ñi nga xam ne ñoom mel-mel ji moo leen gën a parce que ba bayti bàyyi buñ jàng salfaañe ko nag li balaa ñoo am jàmm rek mooy dañoo salfaañe bayti bàyyi bi firée ko firi boo xam ne ba pare nag jaay di jaayee na ñoom ñoo am xam-xam waa da ngaa am xam-xam lu tax doo waxtaanee doomi borom borom xam-xam bi yow da am xam-xam tegal téere bàyyi indi sa xam-xam nga wax li nga xam ñu xam waaye waxi jàmbur ngay jël di ko ëlbati waxi jàmbur ngay jël ko firee te tabakkan te ba luñ la wax nga indi ay lay luñ la wax nga indi ay lay ay lay kay buñ koy indi day fekkee wax ji nekkul dëgg hmm, hmm. waaye wax kay bu dee dëgg soxlawul ay lay. kon nag bu ñuy indi ay lay dafa parce que wax ji nekkul dëgg te Baay Ñas ci boppam téere yi nga xam ne Baay bind na ko nañ ca dem ñu xool ko lettre yi nga xam ne Baay bind na ko nañ ko dem ñu xool ko ñu dem ñu xool mag ñi Baay Baay xool ba nga xam ne Baay yar na leen ñu ñu dem ñu xool leen dana fekk lu bari lu Baay jëf wax ko doo ko fekk ci téere hmm. ah bu fekkoon ne jamono bi dafa yàgg bañ na ñooñu nekkatul fi ñu ne kon léegi bàyyi téere yi fi sës nañ ci jàpp balaa ñuy bàyyi dërëcc jamono yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wees na yàgg na ah. Mm-hmm. ay njabootam jeex nañ ñeñ yar jeex nañ gisatuñu leen léegi téere yi fi des. Mm-hmm. téere yi sax yàgg na yàgg goo xam ne léegi dañuy lijjanti sax ban moo ci wér ak bu ci wérul mm-hmm. ah kon xam nga bu yàlla mayul tawfeex doo doo doo doo dëpp yonent bi kan moo la mën a may tawfeex mooy nga dajeeg. seexu kaamil bu mel ni Cheikh Ibrahim Niass hmm. nga xam ne li ñuy wax ne ki nga xam ne mooy mooy seexu kaamil ki nga xam ne mooy xalifa yàlla bi bu bu téere yépp suuxoon moom mën na koo beesalaat yépp su xam-xam yépp réeroon mën na koo dekkalaat kooku amul problème ku mel ni Baye Niass da ngay dem ci euh, ci kutubu euh, kutubu tafasir yi da ngay fekk ci Baye bu wax loo xam ne ba doo ko fa fekk ci taarix ah tax loolu dafa suuxoon mu delloo si ko kooku mooy borom jamono borom jamono bo borom jamono ah hmm. day wax li gaa yi di jàng wax li riir te jaay gisuñ ci delloo si ko kooku mooy borom jamono hmm. ah kon am na ci benn benn waay boo xam ne bi ñuy neextaan bi ñuy waxtaan ci jamono ci doomi yonent yàlla noo ñetti doomi yonent yàlla noo yi nga xam ne ñoom ñoo dekkalaat àddina moom moo tax ñuy wax yonent yàlla noo di ko wax Adama Sani xis na ba ci bàyyi ñett yi bi ma ko ko waxee ma ah lii dafa wax ci taarix bu réer te delloosi ko te nekkul ci kutubu tafaasir yi bari na parce que mooy borom jamono lépp lu suux da koy da koy delloo subaat waaye koo xam ne yooyu téere yi li ñu bind sax <laughs> xamoo ko. Mhm. da ngay xamee lu réer yow ne daa nga daa ngaa la mun xamoo ko nga ne da wax lu réer dañ bàyyi tappale yi. Mhm. xale yi nag am na ñoo xam ne seytaan fëkk na leen soo loo leen mënti wax. waxi dof lay doon ci yow loo leen mënti wax duñ ko gëm waaye xam nga ne xel réer mënta weesu gis dooy bàyyi dem di laaj koo xam ne taa waaye xamut ci faydu bi amut sax taarixu faydu bi mm-hmm. yow yaa ngi gis dooy bàyyi bi bàyyi yeex ak boppam bàyyi nga bëgg kay demal ci moom laaj ko lan mooy sa problème pour nga dem nga laaj ko yow bu dee arab la bu dee arab la bu dee arab hmm? ngay fii ngay laaj ci cër yi waaye doo dem nga laaj ko moom wala gën a jàng ñoom bàyyi na leen keer ñu jàngi ndax xam ak jàng arab pour dégg arab dégg luxat da jàng lépp bàyyi yóbbu na leen ñu dem jàngi doo dem laaj leen lan mooy sa problème bu dee seyru ci yàlla bàyyi leen tarbiya bàyyi moo leen yàq bàyyi bàyyi comme yar nga xeeb ko ko koy koy màggal su fekkee ne seytaane la jàpp nag fekk kuy taxawaalu ci àll bi moo la gën a jàpp ci ku bàyyi yar xam nga ne moos bay dem bay ci imam Malik dafa fekk jotoo ci Seydina Omar mm-hmm. ah booy dem bay jàpp ci imam Saafi dafa fekk jàpp jotoo ci Seydina Ali waaw dafa fekk jotoo ci ñoom mais boo jotee ci ñoom mu ñu nekk lee la yonent lu mu waxoon ak li mu defoon looy doy seet looy doy imaam Ali mhm. jamono bi Seydina Omar di dund bu bu Seydina bu imaam Malik dundoon danañ ko bàyyi ci jàkk yonent sa sa mu muy jàngale mhm. jamono yi Seydina Omar bu fekkoon fekkoon na jamono bu fekkoon fekk na imaam Malik kon dana jàngale kon nañ nangul yëf yi ñu bàyyi nees yar ñi ngi fi jàng dund ñu bàyyi juróomi fi ñi bàyyi di jàngaleen fii euh, jawar rasaay bii ñi bàyyi di bind lettre yi bàyyi doon bindanteeg muqaddam yi di ko bindanteeg mbokkam yi léegi dara waralu ko mooy sore di bàyyi sore woon a ñoom léegi nag bu fekkoon tey ñu ngi dund ak bàyyi bàyyi bu bind di lettre daf leen di oo ñëw mu wax ak ñoom léegi nag pour les yee xale yi conscientiser leen xalaat loo leen mooy ñi yar lam wax ak ñoom bu doon distance la lettre lay doon kon téere yooyu dem leen jàngi ko ci jàng la bokk hmm. ah, ci jàng la bokk comme na ngay jàng ci lettre lettre bàyyi jawaay da sayin waaye demal muqaddam yi bàyyi dëkkoon ak bàyyi commerce daal si nga xam ne lépp lu bàyyi euh, dund ak muqaddam yi mu ngi fa ah hmm. doomi bàyyi nga xam ne ñu ngi dund tey ku mel ni Cheikh Mahi bi nga xam allah borom xam-xam la léegi ñuy fi muqaddam ñu mel ni imam Cheikh imam Cheikh bi ñu fi nga xam ne macha allah li ko yàlla may ci xam-xamu hadis Sénégal ba mu teg man dajeegu maag wala gisuma man ku ko gën a mokkal hadis ak ku ko gën a xam imam cheikh mu imam imamul akbar mu Medina Baye ngeen yaakaar ne imamul akbar gi ñu koy wax a tax ñu koy wax nga yaakaar jiite jumaay Baay ji rek a tax jiite jumaay a tax daa fay jàng ba yëy kayit gisuma ci Sénégal ku ko gën a mokkal hadis te àgg na ci maqaamay sax hadis yu bëri yu ñu doon euh, euh, euh, kii leeral leeral na kolal ko mel ne Cheikh Mahi Cissé ah? ni mu mel xam-xam bàyyi yar ko jàngal ko bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi yar eh, eh, eh, imam imam imam cheikh yar yar cheikh maahi yar yeneen muqaddam yeneen dooyu bàyyi yépp bàyyi leen yar tey ñu ngi fi ñu gàddaaye loo leen Medina Baye di leen gëmloo taalibe bàyyi maa ngi leen di oo ci ñu jàpp Medina maa ngi leen di oo ci ñu jàpp doomi bàyyi maa leen di oo ñu liggéeyee bàyyi toog fii nag ñu naan la xaqaayiq bii xaqaayiq sàngam xaqaayiq loolu dañ ko war a dox sayru ci néeg mu jubbanti sa jikko bëggaloo la yàlla dëgguloo la ci yàlla yéegal la ci mahabatu yéegal na ci sawxu pour nga mën a jëfandikoo li la bàyyi indil mu yóbbu ci limaan nga mën a la ci lihsaan nga mën a am maqaama ihsaan lii la lay sayru di jëriñ ci yàlla te bàyyi dafa waxoon ne waa amma sayru taraqi fil mahaarifi fil mahaarifi wala yantahi abadan li anna laaha laa nihaayatu lahu abadan loolu bàyyi wax na ko ci wolof hmm. kaset yaa ngi fii loolu bàyyi wax na ko ci wolof sayru am dayo dégg ngeen ko ci wolof sëyul amul dayoo hmm. mooy loolu baay wax ci arab soo demee nag ñu indil la baatu arab bi daq la baatu wolof bi bàyyi moo ko wax sëyul amul dayoo ndax yàlla amul dayoo loolu déggu leen ko ci kati ci bàyyi ci wolof hmm. aywa loolu loolu du waxi wolof ah luy problème bi ah ñoom utal ko dayoo de créel lañ ko ay umuwaat utal ko ay umuwaat <laughs> te te bàyyi jàngale na bàyyi jàngale na taalibe bu dikkee hmm. ne da ngay dem ci bi la bëgg a jëriñ waaye waxuma sëriñ bi la bëgg a mu bëree yow ba ba nga jeex yàlla jeex ci yonent bi yaa ngi dégg. Hmm. mu mu mu mu jeexloo la ci sëriñ bi bu ba sa sëyru matee nga mu mu jas buwaat la nga dellu zaatu ah. delloo zaatu. Hmm. nga am fanaaw foofu soo amee fanaaw foofu fekk yaa nga fa demoo fenn ñu bëree waat ak yow dimbale la ba nga jeex ci bi te doo ko fakk te da ngay xam yàlla rek fi nekk sëriñ bi da ngay xam ne sëriñ bàyyi na ko noonu. mu ne dagal dañ lay sóobaat nag yoonu ñaareel sóobaat boobu ñoom ñu falsifié ko indi ko ci ay pexe yoo xam ne dañuy indi tarbiya bàyyi bi tegal la te sóobaat bi du du ay askar yu lay jox sayru la ci yàlla parce que yàlla mi nga jeexoon te nekkoo fa dangaa war a delluwaat ci mu jeexaat fa te fekk yaa ngi fa te fekk nekkoo fa fekk yónnantëng fa fekk nekku fa fekk Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane nga fa fekk nekku fa fekk xadrati ah, ah, Ibrahima ya ma nga fa fekk nekku fa léegi ba leen waxee ñu ne man maa ngi lay laaj lettre bi bàyyi wax ne taalibe bi war na dem seeti woy matu jamonoom su ko gisee mu jàpp ci moom kóllëre xaqiqatu jàpp ci coloré Mouhamadu Yatoum. xeesat yi moom Mouhamadu Yatoum xeesat yi moom nga saxaloon ko. coloré coloré googu kay. ala yow ma alastu bi rabbikum xaaloo. balaa balaa loolu la ñu waxoon aanaam. xanaa du ma seen borom ñu ne aanaam foofu amoon na couleur jàppoon foofu kon couleur lañ lay fàttali te couleur ñañ ko jàppoon ñooñu ñooy amul ësël ña amoon ësël seen couleur nga amoon ak ñoom ësël yaa ngi dégg. di hmm. fekk yaa ngi fa ci am ak ñàkk yaa ngi fa ci am waaye ci am ak ñàkk ndax fee da jeex ci yàlla fekk ci ñàkk ngay da ci am ngay jeexee fekk ci yaa ngi ci ñàkk yaa ngi dégg. Hmm. fii da nga boo buñ la jas bu waatee yoonu ñaareel nga jeex ci yàlla fekk ci am xam nga fii dangay jeex ci ñàkk ba buñ la laajee sax nga ne diw amul. Hmm. fekk ñàkk nga jeex fii dangay jeex ci am parce que da ngay seer yëf yi léegi nag kóllëre gi nga amoon ak yàlla ci ësël nga nga jaayantewoon ak ñoom ci fekk ci ñàkk nga fa jaayante woon waaye nee na yàlla mën naa bind jëlee ci lu ñàkk indi ko ci lu am mën naa jël lu am delloo ko ci lu ñàkk ndax kattanam ngaa tax yàlla bind na la ci ñàkk fekk yaa ngi ci am kóllëre googu nga jaayante woon lañ lay wes lañ lay wax nga installaat ko fii te te buñ la buñ la delloowaatee ci maqaamal nis nis bu nga nisëb ci yàlla ñu ne la la nisëbal ñu ne ñoom ñu ne ñoom dañuy nisëb ñu ne la nisëbal <laughs> léegi ci seen nisëb yooyu nga xam ne dégguñ ko sax buñ la nisëb looxee looy delloo kóllëre yi ngay jëloo yàlla waxut yàlla waxut la ci alquran hmm. inaa rat naa de waxut na ci alquran ne euh, euh, euh, yàlla leen yàlla ne delloo leen seen amaana yi seen kóllëre yi seen borom seen seen ñooñ seen ñooñ yaa ngi dégg hmm. ne ne kóllëre lu yàlla di laaj la hmm. yaa ngi dégg damay fàtte laayeen léegi yàlla mu ne na ngeen jël kóllëre yi ngeen delloo ko seen bopp seen ñooñ ndax yàlla day laaj kóllëre waaw kóllëre koy delloo yàlla la ko njëkk wax yaa ngi dégg yàlla moo la ko nekk wax bàyyi wax la ko bi la ko bàyyi ne su waxee dafa xam ne kóllëre googu da nga koo jaayante woon ak yàlla est-ce que yaa ngi dégg hmm. parce que kan ngay nga jaayante woon Muhammad yetu Ahmad yetu nga jaayan ñooñu nga jaayante woon léegi ñu ne la nag eh, da ngay dem ca waaji eh, eh, bàyyi na la na nga jaayante waaji nga yeesal sa kóllëre ci ñoom kóllëre yi boo koy yeesal day fekk nga saxaloon ko waaye nag nga yeesalee kóllëre goo ci koo xam ne jaayante woon moom moom ci ësël nga ñëw fi nga ñu ne demal ci moom nga yeesal boo yeesal ci moom looy yeesal ci moom boo yeesal dara kay day fekk mu nekk fa looy yeesal day fekk mu nekk fa moo tax ñàkk dégg gi ñàkk dégg waxi bàyyi lii moo leen di sonal mm-hmm. moo tax bu bàyyi waxee ne na nga jar na soldaal li weñ dox ko ba mu jeex ngir gis sa way mati jamono jooju pour boo ko gisee nga jaayante moom ñetti kóllëre yi muy ak ah Muhammadiyatu ahmad yëtu ibrahim yëtu ah hmm. ñetti couleur yi kay boo koy jaayante waa ji day fekk moom nga nga yeesal ko ci moom day fekk nga nga nga nga nga tàmbale woon ko moom koo tàmbalewut ay ay ay couleur rek noo ko yeesalee ci moom ñii nga xam ne ñoom nga jaayante loolu lay wax yeesalaatalal ci ñoom ah kon taalibe yi nañ eewu te bàyyi ñii nga xam ne dañuy sos di ëlbati waxi bàyyi mag ñi bàyyi yaram fii lu ngeen bëgg ci xam-xamu maarifatu billaahi bàyyi wax na leen ko léegi ñoom d'accord nañ ne bàyyi xamul yàlla d'accord nañ ne ñu bàyyi yar ay masiyob lañ d'accord nañ ne muqaddam yi bàyyi amuñ mahrifa d'accord nañ ne doomi bàyyi amuñ xam-xam d'accord nañ ko de man si seen ñoo si seen biir laa nekkoon man muy wax si seen biir laa nekkoon xam lañu xam li ñuy wax ñu nañu ko jëmbatalee woon si sama xol bàyyi ko faxas moom may sens noonu laa ko xamee te loolu lañ gëm léegi ñu ne ñoom ñëpp ay masiyob lañ masiyob lañ wax de ay masiyob lañ léegi nag ñoom ñooy xaarifu billaahi te loolu xoolal ñooy aarif bilaay de waaye li bàyyi wax la ne ilil de man loolu man ba léegi man damaa yaakaar ne feebar bi moo tax xam nga kan mooy kan moo wér hmm. ki ki yàlla e fëgg ubbi say ba ci xol yow bàyyi mature la waaw d'accord bàyyi mature la li ngay wax ci yëpp ci bàyyi wëjële ci mature waaw ci mature wëjële ngay wax mature <laughs> moom moom ngay jàngal gars yi <laughs> ay waay addina waay ay yàlla moo tax ku yàlla dëpp sa xol bi rek yàlla ko yàlla dëppati rek yow waxi waa moom moom ngay daliloo loo bëgg a wax taalibe bi mu wér waxi waa ji nga koy indil. te moom ñoom yar yëpp ay monsieur li doy wax ma ah? yaa salaam mu lii nag mooy tappale yu rëy yi munoo indi benn wax ci yàlla budul waxi baay ngay indi te moom ma monsieur la de ñu ne bàyyi mooy monsieur bu mag <laughs> waxi baay ñoo koy wax de gëmuñ ko gëmuñ boo déggee ñu ne bàyyi ñes rek seen waaj ji la ñuy wax boo déggee ñu ne xalifa yàlla bi seen waa ji la ñuy wax. lii mooy li wér gëmuñ kenn kenn kenn kenn parce ci ñoom seen bopp lañ leen nàmpatal lii nag suñ bëggee oo taalibe yi pour ñu liggéey faydu bi liggéey jëm Medina ci liggéey yu rëy yi sëriñ bi sëmb taalibe yi bëgg war ko sëmb dañoo war a ee taalibe yi ñu xam ne lañu war a li ñu am ci suñu àddina dañ ko war a boole dajale ko dem yóbbul ko xalifa bi li jàppale ko ci liggéeyam bi ak projet yi mu tëral ñu liggéey ko bàyyi parce que bàyyi nee nañ ko oo na taalibe ñu liggéeyal ko Hmm. yaa ngi dégg bàyyi bàyyi daf ñoo bëggal boppam moo waral lii lépp pour ñu léegi nag su fekkee ne yow taalibe bi yow jël nañ ci yow mbëggeelu doom bi bàyyi rocc ko sànni jël nañ ci yow mbëggeelu muqadda bi bàyyi rocc sànni jël nañ ci yow mbëggeelu dundu bàyyi rocc ko sànni jëmbat ci yow moom mbëggeelu bind bàyyi ak seen waxi ñoom ndax naka la la jaayante pays bi di jaral ñoom la jarale et la jaral hmm. suñu wootee doo def dara parce ki nga war a defal te faale woo ko lijjanti woo ko talloo ko da ko defal dara ya amoo yëg-yëg ci moom mosoo dëgg ñu netti leen ay baax ci moom te jikko yi ñu am ñoom doomi bàyyi ak sang yi ñu am sang yi ñu nekk nekk doomi bàyyi nekk ay doomi bàyyi nekk ay muqaddami bàyyi nekk ay taalibi bàyyi jaayante jaayante ak bàyyi nekk ay taalibi nekk ay wëliyu yàlla nekk ay wëliyu yàlla bàyyi seedeel lu ñu la seedeel bàyyi moo bàyyi nga borom fay dubi moo wax ne ñoom ay wëliyu lañ ñoom yow nga déglu ko dégg ko jàng ko léegi yow nga bëgg a déglu waxi keneen bàyyi nga wax wala yàlla bi ak ah, sëñ bi lii saytaane bu say lii mënta weesu ak ak ak saytaane lii mënta weesu ak musiba léegi loo ma mën a indil man lan nga ma mën a indil ci waxee bàyyi lu may gëm yow gëmoo doomi bàyyi gëmoo ñi bàyyi yar. ataa bàyyi sax. bàyyi ci boppam yow nangoo ay waxam. maqaam bi ko yàlla may nga ne yaa moom bu dem bay àgg ci wax ne yow la bàyyi nes di yaakaar pour pour pour ndimbal sëñ bi lii musiba mën ko weesu. Hmm. te bayt yi bàyyi ni yi ñuy firi ci bàyyi yépp loolu lañ ci nam wane ne njëriñ laa nga ca ñoom ku naanoo ci seen masaraf daal bokkoo naanoo ci lu baay naanoo ci naanu baay ah lii musiba la de fii nag naa leen xamal de këri diine rek lañ koy defee bàyyi rek lañ yem bàyyi rek lañ yem waaye yabu yabu ñeneen dana jeex de nii danañ ko dénoncé danañ ko wax hmm. danañ ko feeñal bañ xam seen tappale yi xale yi ñuy dugg ak ñoom ci néeg yi di naan seen xel yi di leen def lavage de di leen wax lu dut yàlla teg leen ay xel di ko wax loolu lañ bëgg mu leer taalibe yi na ngeen xam ne njëriñ ci loxol yàlla la nekk nekkut ci ay wax te sawku ak mbëggeel ak dëggu la bàyyi oote li li képp koo xam ne jàngoo arab na nga déglu wax yi bàyyi lépp luñ la ci bëgg a naxee bàyyi wax na ko ci kaset mu ngi ci internet bi foo capp téere waxi bàyyi boo ko dégloo da ko dégg loo soxla ci maarifa bàyyi wax na ko ci wolof amul dara lu bàyyi bàyyi lépp luñ lay tëwër yi ci arab bàyyi wax na ko ci wolof man góorgóorlu naa ci loolu li ma mokkal ci ay kasiti bàyyi kenn xamut nu mu toll te boo waxee ñu ne kasiti bàyyi kasiti bàyyi te kasiti bàyyi kat li bàyyi wax ci arab jox na ko ci wolof bàyyi wax na waa maa seeru taraka fi maari fi maara hmm. walaa yente abadan li ana bàyyi waxu na seeru amul day hmm. ndax yàlla amul day hmm. bàyyi wax ko ci wolof ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen gàmmu bàyyi li ci bàyyi wax dañ koo wax ci arab waxuma te ba tey bàyyi ngi wax sax. te ba tey bàyyi ngi wax ci xol bi ndax ci bëgg xam yàlla bu demee ci muqaddam mu wéet ak mun ci néeg du ko indil ay bayti de yàlla la koy tegtal ba mu egg ci borom yàlla la koy tegtal ba mu jeex ci moom yàlla la koy tegtal ba mu àgg ci moom jeex parce que nag sëriñ bi yàlla dafay jógewut bañ koy denc ci ay këyit yàlla dafa dund ba weesu na ay këyit këyit lu tax ñu koy jëfandikoo mooy bu ñu demee ba liñ wax lëntuñu ñu ñu jël ci këyit waxi ku fi nekkul bu ñu fekkee ne wax ji doyut nu ñu dem ci mag mu fi ne. ñu ne ko mm. bàyyi waxi sàngam dañ cee wuute lu ci bàyyi wax te bàyyi bàyyi na fi doone ba mukk ñu fi des ñëpp di dund te bàyyi yaroon leen amu ci kenn ko ci am dayo mën ñoo wax li bàyyi wax ci téere yi xanaa lu dul kenn rek <laughs> ah waaye sëñ ñu na waay. fore ah. fore fore ak tappale ak bëgg kii su ngeen bëggee lu ngeen dundee dem leen ngeen liggéeyi liggéeyi weesu. ngeen liggéey ngeen gëm seen bopp ngeen liggéey te xam ne faydu bi am na borom mënul lu leen tappale tapp naa leen wax leen benn affaire nag ñi koy oote ñëpp seen mujj bu baax lii man maa leen ko omal si Omar ngeen denc asif te yàggul dara nag man xam naa ci dara yàggul dara buñ dëgg dëpput rëkkiliwul yet yi bàyyi xàcc na ko te dana dana dal si seen kaw man leen ko wax nag bàyyi leen xel te képp kum ci fekk nga ànd ak ñoom nag du la ci bàyyi du la ci génne na na leen leer tappal yi ñu nekkee di kar faylu bi te xoolal li leen xam ne seen plan yi ay plan yi caay-caay la mm-hmm. ah mm-hmm. amuñ ittee ci mahajoo bi nga xam ne xamuñ yàlla de duñ leen oo ci yàlla de duñ leen oo ci faydu bi ay palaan la bu ñu teg la pour arrêter faydu bàyyi bi pour tardé liggéeyu bàyyi bi léegi mu xaddam yi ak taalibe yi bàyyi yar la ñuy dem oo leen rikki rikki leen ci liñ nekk indi leen ci ñoom xam nga rikki mooy lan mooy seytaane jax-jaxal la ba imaan ba nga amoon te la nga xamoon imaan ba nga amoon te la nga xam nga ko xam nga loolu seytaane la seytaane mooy rikki moo tax baatu rikki la ñuy jëfandikoo te yëguñ ko jihaat la wax jihaat mooy noonu hmm. yow ngay taalibe may taalibe nga ne yow da ngay ñëw pour jihaat ma kon xam nga yaa ngi ñëw pour gaa xeex ak man la ngay xeex ak man seytaane mooy la ñuy jëfandikoo jihaat la jëfandikoo ak rikki diw rikki naa ko maa ko rikki mu indi kon xam nga kon la nga gëmoon ci bàyyi yàq nañ ko indi la ci ay waxi caaxaan lan moo tax ñu indi la ci ay waxi caaxaan ca parce que bëgguñ faydu bi départ faydu bi yokku léegi amuñ itte ci ñeneen ñi de ñeneen ñi pour ñu indi leen ñu tarbiya seen yoon nekk ci ñoon muqaddame la ñuy dem récupérer te ñooñu dañoo war a xam yàlla te ñooñu dañoo war a xam yàlla te ci lañ bokk léegi muqaddame la ñuy dem récupérer yow seeru sàngam doxoo ko soo ñëwut eslu ci xalifa yàlla bi xamoo yàlla soo ñëwut eslu ci yàlla bi kii ku dëkkul fii doo xam yàlla ku bëgg xam yàlla fii ngay ñëw ganaar yaa ngi ca géej am nañu nekk juróom-ñaari suuf juróom di xam yàlla biir géej am nañu fa nekk di tarbiya di xam yàlla di say bi ci yàlla te yëwoo ko nga ne yaay xalifa yàlla bàyyi ñaas bu ñu waxutoon loolu duñ xam na sax ndeke am na nit yu nekk juróom-ñaari suuf. te ñoom accédé wuñ fa. mukk te ñoom nee nañ ñi bàyyi ñaas nee na ñooña yëguñ ne sax ñii yàlla bind na la ba bindal bi leen di bindal aadama te moom moo leen di sayru moo leen di tarbiya moo leen di xamal seen moom te bu ko waxutoon duñ xam ne sax loolu am na. te loo si xamul nag bàyyi moom am na kàttanal mën a fekk ku gisut mu xamal la yàlla. mu xamal la yàlla ba ngay xam la yàlla. ba ngay xam la yàlla. mu mokkal la téere yëpp. téere yëpp nga mokkal ko da nga mokkal ko. xamee woo lu weex ak lu ñuul kooku dañ <laughs> koy yónnee ci ci xel yi. Mm. tigi kooku lañ yónnee ci xel kooku lañ jox mission xel yi pour waaye am ku am xel rek dana la jox moo tax mu ne amul buur amul baadool. Mm. ku mag ak ku ndaw ku jigéen góor jigéen ak góor a ci yam. amul kii ak ku bëgg rek ba dikkee ma xamal la yàlla kooku mooy borom jamono te jamono bii ñu toll nii xam nañ ko ko moom jamono bii jamono bàyyi la. ñoom nag dañoo réeree jamono. xamuñ ko nag xamuñ lu jamono xamuñ luy bàyyi. Mhm. loolu mooy seen problème bàyyi nag moom am na lu luñ ko def moo tax ñu bëgg a profité ut benn waay samp ko ko. te ñoom nee nañ Baye Niass ci dundam ba mu juddoo ba mu wootee ak fu mu génnee àddina loolooy jamaanoom. te dañoo fàtte bi kan jiyete ak kuntu qabla taxaarufin. bokk ci jamono baaje. loolu bokk ci jamono bokk ci jamono baaje te ñoom dañ koy wax de. bi kan jiyete. aw kuntu qabla ta wala xat kun. waaw kooku noonu nga ba ko wax yow te jël nga ne kooku la bu ko defee moom mu jamono mooy diggante sàngam ak sàngam kooku nga xam ne am na booba am amagut. allahu akbar. nekk na booba nekk nekkagut. kooku am na booba feeñ feeñagut. ba ci yonente Yàlla moom ma sax loolu lañ koy saxalal de waaw dundam ak génn àddina maanaam fi mu wootee fi génne àddina loolu mooy riir waaye loolu mooy te boo waxee ñu wax indi wax Cheikh Tidiane teg parce que Cheikh Tidiane dafa junj te xamuñ li ñu wax lim junj la na lim la xamul la na na eh, jamono eh, jamono bi mu juddoo abam dee loolu mooy jamaanoom waaw waaye waxi kawee yonentu saa salaam wax ne ne nekk naa yonentu di xam ne yonentu laa boobu aadama mu ci diggante banit ak ak suuf aywa diggante banit ak ndox baynal maa i watiin ah rasulun minal mawla wa aadamu lam yakun loolu waxi bàyyi wax na loolu sax. booba aadama nekkut. dégg fanas atuhu kanziyatul xaqi wahdahu. lisaaka ataana qasiman wa muqazzama. te ñu ne si fi mu wootee fi mu génnee àddina mooy jamono. ji na fi waaw Cheikh Tidiane ba muy dem bàyyi fi tarixa bi. bàyyi bi muy dem. ba ba fi fayda bi. waaw léegi ñoom ñu ne jamono yii ñoom ñu loolu lañ moom. loolu mooy lii nag tant que bàyyi rek su ko seen xëy duñ ko xam yaa salaam. lii nag mooy wax ci loolu réer la tarxiis la xamuñ ko. moo tax nañ dellu ci kóllëre yi ñu am mooy ñu ñu jaayantale woon te samp suñ kóllëre rek ñoom nañ leen dellu ci ñoom buñ bëggee jëriñu. Mm. képp ko dagg sa kóllëre mu xadam. Mm. bàyyi dagg sa kóllëre rek moom rek. mu xadam bi dafa nekk ci ak càggante nag nekk ci lu ko neex tappale caaxaan yooyu caaxaan yooyu te yooyu nga bëgg dëggu bàyyi yebal na la nga dem ci beneen mu xadam boo xam ne ba ngay wuti fu ndollal waaye waxul la nga gàttaay ko moom bàyyi te damay gis nag ñoom comme li ñuy def di dagg nit ki bi maanaa boo bëggee xam lii nga xam ne ni moom la sama sëriñ bi am il faut nga bàyyi sa muqaddam nga ñëw nga ñëw si sama muqaddam politique la lañ bëgg mbooloo loolu ëkkati mbooloo yi hmm. ak sànni benn cax ne nangam ak nangam nangam moo fi nangam nangam ak nangam nangam la nit ñi coow nga ne non lii la lii la lii la politique la tappale ndax loolu wax waxaat waxaat rek mu leer Ah, waaw li gënoon a wér de mooy. ñu wax mu soxla soxlawul ngay wax bruit yu am. politique hmm. la système la dañoo bëgg taalibe. Hmm. man damaa dem ba àgg ci sax njortu ne est-ce que nekkul système bi xeex diine moo leen tabax man sama gëstu egg na ba foofu ndax soo jàngatee faydu bi ni muy doxee. Hmm. nga xool seen doxalin mooy soxlawuñ ñu xamagut yàlla ndax bloqué nañ foofu muqaddam bi bëgg a xam yàlla ñu bloqué la rek rëkki la ñoo indi la dootuñ la bàyyee nga tarbiyewaat leen topp yëpp duñ tarbiyee li may wax ni mu muqaddam yi ci dugg nañ vérifier seen bopp bañ ca duggee ba tey tarbiyé wuñ nit no nu fari bi yokkoo te ñoom ya ca dugg bloqué nañ leen bépp taaliba bu ñu rékki dootoo indi mahajur bu xamul yàlla waaw xam-xam boobu dootoo ci xamati dara dootoo ci jotati dootoo indi mahajur bu xamul yàlla déedéet dañ lay rékki man mm. nekk naa ci ñoom man dama daan tarbiyé juróomi juróomi euh, euh, euh, semaine bu nekk lu mu bon bon daan naa dugal ci faydu bi Euh, juróomi nit wala semaine laa la wax de wala fukki nit par semaine waaye gis nga ba ma demee ci ñoom jébbalu ci ñoom juróomi at toog naa ko dégguma ko ma wax damaa bëgg xam yàlla. juróomi at laa la wax toog naa dégguma ko ma wax damaa bëgg tarbiya juróomi at yooyu yëpp ñu bëgg a dugg ci bàyyi ñaas ñoom ñoo leen bloqué muy man di sama junniy morom moo tax lii dafa laaj saytu bi ñu toogaat nag laa ko xoolal man lii mooy sama volonté ba tax ma ma wax am na mag ñu bëri nag ñoo xam ne maa ngi ciy maa ngi diisoo ñoom. Mm-hmm. te ñoom nañ def attention nañ xam ne nag gars yi jóg nañ jëm lu xew nag waaye danañ bàyyi de. incha allah bàyyi par A ou par B. ci par A lañ toll. Mm-hmm. moo tax nañ arrêté seen caaxaan mm-hmm. ñu ngi gërëm bu baax di leen sant di sant yàlla bu baax di jëm ci yonent yàlla Muhammad jot na gàmmu jot na nañ ko waajal ndax Cheikh Ibrahima dana wax ni an li Ibrahima laaha xilaaluhu xilaalu badali naasirina jamaaluhu weeru bàyyi teru na. weeru bàyyi septembre weeroon wa teru na nañ góorgóorlu bu suñ njaboot yi yóbbu leen te dajaleel alal ji jalal addi yi yóbbu mari na dem ak jikko yi rafet xol bu sell xol bu laab yóbbul bàyyi ñes ay salaatu fatiha ak alquran bi ñuy jàng ak hadiya ji ñuy jox njabootam bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal xalifa bi mu yàgg fi te wér yi mu naal yàlla yeggaleel ko ko ci barke yonent bi salaa salaam mu yeggale ko ak sagoom ak ay rakkam ak ay doomam ak ay taalibeem di gërëm di sant ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf